وبركاته إن للجنة بابا يقال له ريان يقال يوم القيامة أين الظالمون la bopp li àjjana yi neex neex moom dañ ko fa bàyyi woorkat yi fa la ñuy jaar dañ leen di wutal ay xàmmikaay yoo xam ne ku bokkut ca ñoom du mën a xam màndarga yi ñuy woote yàlla na ci yàlla boole suñ koor waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal wax dal na wax ne ki woor am na yaari mbégte yu koy nekk mel ni mbégte mi fii ci kaw suuf la bëccëg bu tàng jër ngelaw li tàng jër ndox amut waaye bu ñu demee ba naan juróomi minit wala ñaar moo des ci ndogu mu xool yi ngi ndogu yëpp teew bañ ne dog leen ku ne xam ne ni mbigte mooma kenn ku ci nekk lam ci yéeg moom rek moo ko xam waaye nee na yowmal qiyaam lay raw ndax bu ëllëgee bañ naan ñi wooroon nañ ñëwee nii ak xéewal ya fay balle di génn su boobaa yàlla na ci yàlla boole waaye dara jërut bañ caa bokk kon suñ koor googu yàlla yàlla yàlla nañu yàlla boole si ñaari mbégte yooyu moom lay wax ne li saa in farxataani yafraxuhuma ida aftara fii ci àdduna farixa bi fitre wa ida laqiya rabbahu waaye suñ bu mag biit ci ay mbindam am na xasida goo xam ne ñi ngi ko tënkee fii chahri ramadan ama alsasin ama alsasin nag ci at yiñ gën a ràññi koor 1913 la woon daje woon ak weeru août nit ñi dañu ko siyaare si fa njëriñ ñenn ñi woñ sa lool woñ sa jeex takk ndax am na si ñoo xam ne ndogu da leen doon jaaxal xadd di leen jaaxal ba boo leen gisee xam ne ci coono yu metti lañ jóge sëriñ bi nag di leen bëggal ci coono yooyu ñu dajoon di leen xamal ne du neen du neen daal di bind xasida boobu fukki bayit ak juróom yaar la mi ngi ko tënk fii chahri ramadan ama alsasin mooy weeru août 1913 dañ ciy indi rek yetti bayit yoo xam ne war naa dalal xelam ku doon woor ma ngi ko tàmbalee faza alladina xaafadu ala bii shahrin bihi ughliqa baabun lil iyaam ñi nga xam ne ñoo woor weer yu koor yi ba mu jeex ak coono buñ ci mën a daj yàlla defal na leen lañ doon lañ doon lañ wut lañ doon bëgg defal na leen ko lañ doon wut te xamuñu fi ñu koy jële yàlla may na la yàlla nañu sa boole dal ne ñi sonnoon lool ci biir koor gi te amuñu luñ doon doge yaraw na afdala futurin fil xubur bis bu seen Euh, ak ru tàggoog seen jëmm ba ñu fab leen ba jébbal leen seen borom danañ fa gis ndogu lu dàq fuuf li waroom doole yi di ndogoo fii ci kaw suuf waaye yomal xiyaama lay raw ndax dinañ tase payu koo xam ne du jeexal dara yaraw na afdala futurin fi lqubur wa fi lqiyamati min almuxni lkabir dal la cay teg nag loo xam ne moom dégg ko jar na umaat wala weeru ko doonaat suba nee na suñu borom mi bind bindeef yépp mu ngi jël mbindeefam yépp di leen seereel ne ngërëmam day sax ba faw ci ñi waroon weree ba mu jeex shahida xaaliqul wara lissaaimin fi ramadana biridahu lqaaimin kon bokk lañ ca def mu néew mu bari yàlla na ko suñu borom nangu te bu ko dul woon nangu yonent bi du ci jàngale jàngale moom mu ci jàngale sëriñ bi du ko leeral njabootam gi nii mu ko leeral kon ñu xam ne gan gu fi jaaroon di dem la gan nag kenn mënu koo tee e, lum néew néew lenn muy nettali aw yoonam ñam fa fekk ak lañ fa nekke woon ak moom yàlla na yàlla dimbale ba bu mu ñuy nettali mu doon lu su mën wax fu nekk mu mel ne it <coughs> nangu euh, koor yàlla rek moo xam moo nattukaay waaye ab jaam mën na jaa xam dara jaamu yàlla yi nekke woon ci biir koor gi ak pas-pas bañ ca amoon ak yu baax yañ ca doon def bu fekkee koor gi daa jeex jàll nii mu jàll ñu gën a sawar ca jaamu yàlla yooyu loolu kum dal mën naa rafet njort ci ne kooram yàlla nangu na ko waaye nag su fekkee dafa delluwaat ca maninam laata ñuy woor war naa seetaat boppam waaye mandar gi wane ne koor gi nangu na daal mooy jaamu yàlla yéen toggoo mu bañ koo bàyyi bu ñu waree itam yàlla ñu ci yàlla dimbali yonent bi rek sallallahu alayhi wa wax na ne bu koor gi jàllee it ku ca teg ay fan am nañu ne juróom-benn am nañu juróom-ñaar yoo xam ne nu mu ko defee baax na dana mel ne ku woor di des ci àdduna ci ay bés yépp moom it sëriñ bi neen dañu bàyyi wala xel lool kon loolu moo doon tomb bu njëkk bi tomb bu ñaareel bi nga xam ne ci lay jeexale nag sëriñ bi mi ngi dénk ci ndigalul kilifa yépp ñu waajal liggéey ñi nga xam ne seen liggéey daa gën a jëm ci suuf si ñu waajal ko te yaakaar ci yàlla te fas ca yii te ñaan yàlla mu defal mu ndoxum jàmm mu muy dundal te lañuy muy dundal di ko saxal yàlla dimbale ñu muur loolu te fekkewaat koor gi ay ati ati at ñi nga xam ne it yàlla dafa dogal seen seeni fan yamoon ci biir weeru koor wi it yàlla na yàlla yërëm ñëpp te jéggal ñépp te teg ci euh, loxoy njaboot xolub muñ te bàyyi leen fi bañ mën a àggale seen naaj yi ña leen fi dëddu sëriñ bi nag mi ngi dellu di ñaanal euh, sëriñ Touba sëriñ Cheikh Mahamadou Mountakha suñu boroom yàggal ko fi te wéral ko te yàggal fi it sëriñ Abu Baraka ak mbooleem njaboot gépp ak mbooleem jullit yépp te def jàmm ci réew mi jàmm ju sax lu yomb ci moom la yàlla ko def kàddu yooyu sëriñ bi waxoon ne nañu ko ko jottalil xam naa ne li ci li koy mottali te genn kàddoom mooy gën sama téeméeri kàddu ci làmmiñam wu tedd bi lay bàyyi koo yooyu daal la ñu jot ci jot ci moom nag mooy ñaan mooy e, dolli lañ ciy dolli loolu la la ñu amoon digal yàlla nañ ko fekkee déwén te yàlla bu mu doon suñu ko te bu ñu fekkee waat yàlla nañ ko tax gannaaw bu sant ci ñaan bi ñu ko ñaanoon daaw fekk ko ren yàlla nañ ko fekk déwén ñu ngi koy sant ci rek ñaan may gi ñu may fekk ko ren asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu